salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa wér yaram ñu ngi nuyu ñëpp mbokk mooma doon laajaat ci wàllu laaj ay njëriñam laaj day njëriñam moom wax nañ ko ba tey bokk na ci njëriñam yu bare bare sàmm aar surtout nag aar nit ki ak raxas loo xam ne xëy na nekk na ci yaram bëgg mu dëj surtout yi wàlle nga xam ne jàngoro yu nga xam ne day jógee ci toxu daal ci nit loolu moom lu ko ci mel moom bariwul te laaj di ko jëfandikoo day tax sa yaram am kàttan ba tax yenn xeeti e, tawat yi wàlle du la mën a dal sooy kaaraange yaram si soldaar yaram da koy yokk ba nga xam ne tey fu mu ne yooyu di wàlle yëpp yàlla mën la ci taw te it la boo xam ne mooy dafa bokk ci yi nga xam ne aar e, yaram itam yi fajit yenn xerit metit wala tawat yo xam ne day nek ci bu koy jëfandikoo su borom mën na koy defal toof gis nga ben laaj rek wax nañ ne bis bu ne nga xey ben laaj ben dom kem boko ko jël ci ben kem rek nga jëfandikoo ko suba man na tax sa dara di daw normal ndax da koy sat lolu boko saxo ab dir rek bis bu ne ben dom boobu rek nga xol man na dimbalen ki ci lu bare bare ci jëfë jafe wàllu doxinu deretam boobu te di bu fekkee koo xam ne dafa am tension la baax na ci moom trop surtout tension bu bëgg yëg bu koy jëfandikoo baax na ci moom trop ba ci sax bu dee sukar ñoom sukar baax na ci ñoom trop bu ñu koy jëfandikoo par benn noonu rek suba gi noonu baax na ci moom na koy dimbale bu baax a baax baax ba tey ñi nga xam ne tey dañu am jafe-jafe ci wàllu euh, euh, seen poftan boobu tuurukaay ndox boobu. te foofu seggukaay boobu ba ci foie bi nga xam ne day segg mu itam toxine yooyu di ko laal léeg-léeg day dem ba eh, muy mit moo xam gis ñuy jàmp sax léeg-léeg seen point côté bi ci kaw ci wetu ndeyjoor bi naan day jam ak yu mel noonu te fekk sax mën naa am toxine yooyu nga xam ne léegi mu nekk ci foie bi wala graisse boobu da su koy jëfandiku moom it benn doom boobu rek mu xëy da nga koy ko yéey ko wala mu boole ko lu muy lek lekk wala sax mu boole ko dulem jëfandikoo ko baax na trop trop trop ci lu mel noonu ba ci ñi nga xam ne sax même gis nga ñii leen soxna yi nga xam ne dañuy ragal tax seen ween yi di wàcc baax na ci trop suñ koy jëfandikoo par suba noonu mën na koy dimbal ndax yooyu yëpp mu ngi ci deret ji dul doxee rek lu mel noonu mooy tax yu mel noonu di leen gën a dal waaye suñ koy jëfandikoo moom itam te saxoo ko nag yàlla mën naa def tawfiix bu baax a baax ba ci ñi nga xam ne dañoo bëgg sax yax yax yu dëgër dañ leen koy digal hmm. bu ne rek bu ñu xëyee léegi ñu jël benn doom di ko jëfandikoo waaye nag du def tey benn tey bàyyi suba ndax mu ngi ak ferñeent yoo xam ne lu baax la lool ci wàllu yax ba yax yooyu nga xam ne tey day funax bu ko nit kiy jëfandikoo yàlla dana ko ci aar même sax wax nañ ne bu dammoon di ko jëfandikoo sax day tax léegi mu gaaw a euh, dellusiwaat ndax ferñeent yi nga xam léegi nit ki da koo soxla wax naa ne gis nga ko nga xam ne dafa am suukar ba tey baax na ci moom doo koy jëfandikoo par suukatel bés ba ne mu jël ci benn kem rek jëfandikoo ko mën na koy dimbale ba euh, yaramam suukar bi ni doon desee ci yaramam noonu boo dina wàññeeku ba jafe-jafe yooyu nga xam ne moom lay yëg boo ko mën na koy sàmm mën na it baax na trop moom laaj ndax bokk yi nga xam ne day siral gémmiñ surtout nag mu yéeku noonu ne jafe-jafe yi nga xam ne microbe yooyu di des ci wàllu gémmiñ yeeg yooyu damay indi tawati bañ yeeg yooyu wala tawati gémmiñ yooyu kooku it baax na ci trop bu koy jëfandikoo moom surtout mu ko yéey noonu baax na lool ci wàllu gémmiñam da koy dimbale ba jafe-jafe yooyu bu koy jëfandikoo moom baax na trop ci wàllu Eh, biiram surtout ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe lekk bu rees mi tam baax na ñu toog bu dee benn doom bi noonu rek da koy jëfandikoo baax na ba tey boo koy jëfandikoo su bëggee noonu baax na lool ci wàllu der ndax day siral deretam te loolu su sedee rek da nga gis yaramam mel noo xam ne ñi nga xam ne da nga gis léegi dañu toppatoo yaram ba sonn te fekk li li tax melul ne war a mel loolu ci biir la mooy dundin wi ñuy dund moo jaarul yoon ñooñu itam buñ koy jëfandikoo mooy itam laaj boobu baax na lool ci suba gi di ko jëfandikoo ba ci ñi nga xam ne sax seen bopp yi day métti léegoo léegi wala sax nga xam léegi dañuy dem fi ak ñuy wala ñuy miir wala yu mel noon wala seen yaram di tàng yenn tàng yu ëpp yi ñoom itam baax na ci ñoom trop buñ koy jëfandikoo comme ni ma waxoon par benn ba ci ñi nga xam ne dañuy soj soj lenaa yëpp fi ñu toll ñu soj soj rek soj rek wala sëqat ci asthme bi sax ngay gis wala bronchite yi baax na ci trop bu fekkee day jël bis bu ne rek mu jël ci benn doom rek moom yéey ko naan ndox wala mu boole ko lem yéey ko ko su ko mënoon ko noonu rek euh, war na ko noonu naan ndox baax na lool ci xeet sëqat yu yeeg ñi nga xam seen dënn yi day riir de xaaxante ko yu mel noonu yooyu ba ci ñi nga xam sax seen température day yéeg yéeg góob góob baax na trop ba ci walu siñ mom waxoon ñi nga xam ñam jafé jafé ci walu siñ jafé jafé ci walu gemeñ ba ci bañ yoy tak tax bax na ci loolu wax nañ ne boo koy yéeñ kooku moom yàlla mën na koy defal tawfeex ba jafé jafé bañ yoy sun borom man na ci safara ndax yi nga xam ne léegi ñooy gas bañ yoy loolu boo koy yéey loolu da koy ray da koy dindum set ba ci ñi nga xam sax dañu am bop yu ubu yoy am ab tucc tuccal benn laaj rek def ko léegi ci meew kaasu meew mu dugg rek def ko ci naan ko baax na lool sax surtout bu guddi moom mu bëgg a tëdd nelaw mu tëdd mën na jël benn laaj rek tucc tuccul ko benn kemb noonu tàngal kaasu ndoxam rek moom tàng jër mu sotti ko ci def ci meew nga bàyyi ko bu kii ba yàbbi ci rek mu naan ko baax na lool lool ci wér ko te loolu day baax trop ci wàllu eh, xel surtout wàllu xel seen xel day jaxasoo lay mel noonu ñu dem buñ koy jëfandikoo ci waxtu mel noonu yàlla mën na dafa dafa te dafa bokk ñi nga xam ne day saal yaram surtout fekkee nit ki dafa bëgg yaramam set wécc datam set boo koy jëfandikoo kii nii mu wax nii kon mën na koy dimbali ba filtre deretam ba nga xam ne léegi yenn jafe-jafe yëpp même bu mbas nga xeeti tawat yi ñuy wax nii bu amee wax bis bu ne nga lekk benn doomu laaj ni yàlla mën la ci sàmm mën la ci aar ndax da koy sàmm day aar yaram ba xeeti doomu jàngoro yi nga xam ne léegi ñooy warlaate ñooy dale moom duñ ko mën a dal ak yeneen sax yu bare bari yoo xam ne sax xëy na àgguñ ci dañ ko tënk rek ci li waaye laaj moom lu bëri njëriñ la waaye nag lu bëri bëri nag na yem te it am na ñoo xam ne seen biir nangu na ko am na ñoo xam ne nag seen biir nangu ko su waaye nag ñu ko seen biir nangu nag dañ koy bàyyi wala ñu jaar ak moom feneen waaye ndax da nga gis ñeen ñi sax dañ koy tàngal mu ne ko moo tàngal ndox jër nga tucc tuccal def ko ci su baa comme dangar boobu ma amoon noonu moom day wàññi ko te moom am na ñu bokk na ci nga xam ne même boo ko lakkee du tax wala nga tàngal ko du tax léegi moom ferñeent yi ma amoon dara du ci wàññeeku moo tax am na ñoo xam ne sax balaa ñu koy jëfandikoo noonu lañ ko def dañ koy def ci dóom bu tàng génnee ko door ko jëfandikoo wala ñu tàngal kaasu ndox tucc tuccal ko def ko ci bàyyi ko mu yàpp ñu naan ko